kon yéen waa presse bi ñoo leen gërëm ñun ñoo ngi tudd Modou Fall nekk maire commune de Koul arrondissement Mérina ndaxaar département bu teewal tey nag li ñu fi dajale woon mën naa ne ñetti mbir la mbir bi njëkk mooy dan noo may ab ambulance ñu ne ko may nag <coughs> ñoo ngi dëkk France ki leen fi donc teewal ñu koy wax Serigne Samb nekkan adjoint au maire ngaay léegi nag mu nekk principal Ngaye bokk ci comité de jumelage bi. moom tam mu ko doon piloté bi mu demee nag ba lépp ñëw moom mu yëkkati caabi jox na loolu nag kon ñu ngi leen ci sant bu baax a baax a baax xam ne li nu defal ñoom xamuñu sax nu mu toll. jafe-jafe yi mi saafara jàpp naa ne bu njëkk mooy ab infirmier li ko gën a jaaxal mooy nga am médecin nga am malade boo war a référé amoo oto boo ko dugal wala boog li nga yaakaar mooy ab charrette wala ab clando boo woyee ngaay léegi nag kon soo amee ambulance boo xam ne mi ngi tawet jàpp naa ni kon référence moom day daal di saafaraw surtout que ñun commune Koul cent soixante quinze kilomètres carrés juróom benn juróomi kilomètres rek moom leen def xeeri xong li ci def lépp suuf soo nga xam ni suuf joor la te xam ngeen suuf joor ab oto daw ci jafe na lool moo tax léeg-léeg sax ab oto daw ba yàgg ab ab ku yor ab malade nga cang ci yoon wi ngay woo gone yu la puus ci biir dëkk bi imagine loolu boobu jafe-jafe ku la ko saafaraal kon jàpp naa ne loolu lu am solo la jigéen ñi wérul ñi nag xam nga ne ñoom ñoo ci ëpp chance ndax kët nekk jigéen ñu wérul ñu teg ci ab charrette wala léeg-léeg sax nga dox jóge juróomi kilomètre bëgg wuti ab poste santé loolu jàpp naa ne jaaduwul woon moo tax tam suñ doole jëpp suñ xaalis yëpp ci am la lekkan kon nag bi ñu amee partenaire vraiment yu baaxee dëkk France ci commune bu ñuy wax moo Corneille ñu jàppale nu ci lii du man lu sant leen ci ndax kët saafara boobu moom lu yàgg bëgg la am na sax ñu wax léegi ñaar fukki at booba léegi ñoo ko jàmbat wax nañ fu dugg nañ fu nekk ñaan nañ fu nekk wante nguur yi daal daa mel ni ñoom loolu leen ñërul woon wante comme nag am nañ partenaire yoo nga xam ne ñoom rek lañ loolu duñ def lu dul sant leen wante nag di tàllal loxo nguur gi xam nag ñun ñoo ngi juróomi poste sante yoru benn rek te jàpp na ni li baaxal nag poste santé bu nekk am sa ambulance ndax nag ay urgence mën naa jóge doo fu nekk mën naa am Koul am Xàndan am toobaakan Kane am Fass am faneen loolu lépp na kon jàpp naan ambulance yi nguur gi tam bu ci dugalee loxoom nan ko ci sant bu baax a baax te yaakaar na nag na ci dugal loxoom. ah loolu de moom mooy jàmbat li ci gën a gën a rëy ndax li ma wax rek fukki dëkk téeméeri dëkk ak juróom de xam naa ni lu mat fukki dëkk ak juróom amu ci courant te loolu nag lu yéeme la. ndax courant day léegi léegi day loo nga xam mënut a ñàkk ci dundu doomu aadama surtout nag pour développement surtout pour développement soo bëggee daal émerger te ne amoo courant émergence moom mënut am foofa. kon ñoo ngi woo njiitu réew mi mu bàyyi xelam loolu ci bu baax a baax moo tax ñun ñu jàppan ne PUDC bi occasion la woon pour commune yu mel ni Koul ñu dugal leen ci dëkk yi ci ëpp ñu def leen courant loolu dina tax vraiment taux de croissance bi ñuy wax mën naa jógee 7 pour cent jëm ba 12 pour cent ndax nag développement. émergence àll bi moo ko mën a porter wax ji wax ji àll bi ñooy liggéey ñooy bay ñooy sonn mais nag bu dee amul ak jëf jëfandikaay yu mel ni courant seen man-man day limité surtout nag nga baye bay bay ba noppi amoo yoon woo jaar loolu day loo bëgg bëgg bëgg bëgg liggéey da lay décourager loo sinon nga bay ba noppi bu dee jar ñaar fukk nga jaayee ko juróomi dërëm ndax borom doole moo ñëw fekk la sa dëkk yow amuloo ko génne mu fay la njëggu bon te ne di nga jaay. bala mu jaax say loxo ko dal courant tali loolu moom jàpp na ni émergence moom foofu la war a lal ba noppee ah, guy sagal day ñu koy ñu koy wax te mëma wolof jàpp na loolu ñu def lu jaadu la ndax nag ak fiiru courant mun la tiim lu mat fanweeri at te amoo ci courant bi loolu moom jàpp nañ ni du lu jaadu te ñoom nag li def moom man mi sax xam naa su ma ko yëgan naa leen jàppale leen te am na dëkk yoo xam sax su ñu ko yëgan nañ def ànd ak ñoom ndax nag ñi mel ni ñoom def ko di génn bari na temps yee waa lonkaan génneen nañu te jàpp naa ni ñeneen ak ñeneen ak ñeneen sanjuk siin bu mënoon a génneen génn sanjuk siin xam nga fa nekk dëkk boo xam ne mat ne junni amul courant loolu ndax xelam na ko nagu njaxalaa na ngi fii jike ba dee amul courant ndax loolu xelam na ko nagu na ngi fii ndob la nga xam fii jamaa ngi fii ak yeneen ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp amul courant te dëkk yoo xam ne daanaka yooyu mat na jun junni nit donc ñun jàpp na ne ni critère daal de sélection bi ne tànn dëkk yi moom war nañ ko xoolaat wut a nekk ci at par par wala dafa war a ne critère objectif yoo nga xam ni loolu ngir développement rek la mais tant que nag ñu bàyyi dëkk boo nga xam ñett kër dong la di ko defal courant di bàyyi dëkk boo nga xam ni am na junni nit amul courant loolu moom bu émergence mënta ko foofu émergence daal objectivité choix objectif critère objectif moo ko mën a lal kon nag ñoo ngi woo njiitu réew mi ni ko ñi ko jege nañ koy wax dëgg-dëgg li am suñu ko bëggee dimbali nit dimbali da nga koy wax li nga xam ni su ko defee kenn du ne lii day kenn waru koo def wante dëkk boo nga xam ne juróomi kër la nga jëm fa courant bay dëkk boo nga xam ne am na téeméeri kër nekk ñaari junni kër ñaari junni nit amul courant xel woo war nga wala dëkk boo nga xam ne fanweeri nit doo ko nekk nga jëm fa ab tali bay dëkk boo nga xam ne am na junni nit yóbbu foofu ab tali loolu tam war nañ koo xoolaat. kon liggéey jigéen ñi tam jàpp naa ni jàpp naa ne jigéen moom day lu am solo ci réew mi ndax nag téeméer bu nekk. juróom fukki ak ñaar ay jigéen lañu te nag jigéen ñi ñoo taw kër yi kër nag su ko diggéen tawoo mun koo boole yenn yi moo tax ñu xam ni machine soq machine wol mun a ñàkk ci jigéen ñi loolu la tax temps bi nga xam daaneen ko def ci yenn liggéey yi ay soq ak bojjo ak yeneen loolu ñu bàyyi ko suñ ko defee dinañ mën a consacrer temps boobu yeneen liggéey boo nga xam ni ay activité génératrice de revenu lay doon moo tax suñu xel jàpp ne lii lu jaadu la muy ay machine jox leen ko ne jàpp naa nag ab tàmbali dong la ndax ñun suñu yéene mooy dëkk bu nekk ñu yóbbu fa am machine dëkk bu nekk bu doon mën na ko suñu poos courant na fa dem leneen na fa dem mel na ñun lii la suñu doole doole tooleel muy ay machine ak yeneen loolu moom ñoo ngi ci loolu tax moo tax nag jigéen soo ko jàppalee jàpp kër gépp jàppale ndax nag boroom kër yu bari liñ bëgg bare na mais nag seen man-man bëriwul lool kon nag suñ fexee ba jigéen ñi ñoom itam am temps pour jàppale ci kër yi loolu jàpp naan su defee léegi émergence am te loolu nag fi la émergence am jàng itam ñu jàpp ni école moom bu tëjee rek war ngaa xaar école ni dañ tëj moo tax ñun fi mu nekk suñu fourniture scolaire moom jënd ko ba teg ko parce que nag loolu moo nu war moo tax bu école tijjee kenn du laye ni man kët sama doom amul fourniture kon du mën a jàngi maître bi du ni parents yi jënd nu fourniture du ma mën a commencé élève itam du ni amul fourniture kon du ma jàngi moo tax daal ñun ñu ni dañ ko jënd léegi bu école tëjee le trois rek incha allah ñu joxe ko jàngalekat yi jàngale comme ça résultat yi itam mën a vraiment baax ndax loolu dan tax tam yàq yokk kantum horaire bi lool kantum bi ñuy wax li ci ëpp bu école tëjee lay doon ndax école day tëji xale bi du am fourniture du dem maître bi toog di ko xaar du mën a commencer mais loolu ci liy wàññi kantum horaire bi ci baax la moo tax nguur gi war naa fexe ba daal fourniture yi moom commune yëpp di ko teel a jënd loolu déjà dina pallier lu bari ci retard yi nga xam ne ñoo ngi koy constaté ba école tëjee photocopieuse tam jox nañ ko waa école bi ndax dañoo jàpp nag école moom soo amee ab texte léeg-léeg li gën a yomb mooy nga photocopie jox ko élève bu nekk mu tiim ko mais bu dee da ko bëgg bind tableau bi rek élève bi di xool wala mu ko recopier loolu déjà ci quantum horaire bi da ci influencer négativement moo tax suñu xel jàppal ni jëndal leen ab photocopieuse daal jox leen ko ñu koy jëfandikoo dina tam yokk ñoom seen gain temps loolu daal moo tax tam ñu ni loolu ab commencement dong la ndax buñ sañoon nag zone yi am cours yëpp kenn ku nekk dañ leen jëndal ab photocopieuse jël leen imprimante ak lépp nga xam ne ñoom daal ñoom tam seenu njàngale dañ ci gën a sawar ndax nag jàng day loo nga xam lu day lu métti lu jafe kon nag bu la méttiwul dans certaines conditions tam loo xarañ xarañ xarañ day manqué moo tax ñun tam suñu xel nekk ci loolu ma jàpp nañ lii tam ab koo xam rek la pour école yi ndax nag suñ ambition mooy école yi nga xam ne mériguñ ko yëpp ñu méré leen fa amul toilette ñu yóbbu ko fa fa amul ndox ñu yóbbu ko fa ndax loolu lépp tëg accompagner émergence la ndax émergence moom fii lay commencé wax ji wax ji daal tant communes yi émergé wuñu Sénégal du émerger kon nag il faut que politique yi ñu commencé ko ci communes yi nag mu jëm ca kaw kon jàpp naa daal ñun communes yi bu ñu jàppee ne émergence ñun la war a commencé nguur gi nag jàppale na ci li nga xam ñun mënuñu ko ñu defal na ko kon jàpp naa ni fii ak ay at yu néew nañ xam ne Sénégal soppeeku na mais Sénégal mënut soppeeku tant que ah li ñu joxe lépp da xam naa ni jàpp naa ni bu dee ambulance beeg fourniture yooyu moom ay vingt cinq millions na ko mat. dina ko mat parce que nag xaalis su bari la mais loolu lépp nag jàpp naa nit ñi vraiment tam jàppale nañu ci jàppale nañu ci ko ci ay conseils dina xelal li baax ci nit ñu koy def parce que nit ñëw soo koy gunge da koy gunge ci dëgg di ko wax li nga xam ne askan wi suñ ko gisee ni lii lu baax la moo tax tam conseil yëpp daal jàpp nañ ni ñoo ngi leen sant leen gërëm parce que lii def nañ ko mais nag conseil yi ñoo ko voté woon ñun ñu def lu dul exécuté ko organe exécutif donc lanu mais organe délibérant bi def na li ko war su defee nag li ko war ba noppi ñun bu exécutul ñun kon ñooy faillir à notre mission jërë ngeen jëf si merci. Sam euh, je suis membre laa ci comité de jumelage bu Koul ak Moncorné c'est que Moncorné dafa nekkal ñoo xam ni dañ daan liggéey ak euh, waa Jama école élémentaire ba bi ñuy liggéey ak Jama élèves yi ñëw CM Moulaan Ndaw bu ñëwee CM Moulaan Ndaw fekkuñu fa ñu commencé di am ay correspondance ak ñoom. donc ci biir correspondance yi ñu dem ba ñoom ñu ñëw relation entre le CM Mourad Ndaw ak le CM Moncol ne am mais ñu bu bëgg ci jóge aussi dem ci collectivité locale yi collectivité leen ñëwee Koul donc Koul bi ñu fa demee en 2009 lañ fa jëkk a dem sérieusement foofu lañ jëkk a gis benn ambulance pour jox ñu ko mais avec l'âge de la voiture on ne pouvait pas la mën ñu ko woon indi léegi ci leen am beneen commune beneen euh, possibilité ni léegi ñu envoyé ñu jël fii. ci leen jëndee fii donc 5 millions 200 la ñu envoyé et ces 5 millions 200 nous a permis d'acheter une def ko préparer ko ba mu nekk ambulance et moom la doon joxe tey jii. voilà donc maa leen di nuyu euh, man maay docteur bi nekk fii ci poste de santé bi ñuy wax Koul euh, fii nag boo gisee consultation yi li ci ëpp li ñuy am maam xale yi seen biir di daw ak surtout feebar yi nga xamante ni feebaru. xëtër la nooyikaay mais ci mag yi li ci ëpp mooy feebaru tension la ñuy am tension bu yéeg parce que tension dafa am ñaar am na bu yéeg am na bu wàcc surtout nag tension bu yéeg te tension bu yéeg ak itam yenn saa yi nga am quelques cas yi nga xamante ne ay diabète la maanaam feebar bu ñu suukar loolu dinañ ko fi gis mais bu njëkkoon daan na bëri kaawu sibiru mais nag léegi sibiru bi vraiment dellu na ginnaaw wàññeeku na bu baax. ci ay mhm. exactement vraiment moo tax tey man dama kontaan lu tax ma kontaan ndaxte daf ñu maanaam daf ñu teggil benn mbir bi nga xamante ni dafa daan peser suñ kaw boo daan waaj a recevoir jigéen bi nga xamante ni leer na la kii dafay sañe da ngay jaxle parce que da koy war a évacuer ci ci gaaw gaaw di ci gaaw gaaw bi ñoom ñu yore saret ñëw gaare nga obligé ni xaaral ma woote kalando fii bu ko yóbbu te itam loolu muy indi ay jafe-jafe ci euh, ci jigéen ñi boo xoolee dëkk bi fii maanaam téeméeri village la ak juróom te dañu soriante loolu sax donc tey jigéen buy matu fenn ñu war koo teg ci saret coket bi yokk ko yokk ko ba kañ lay agsi donc lu nekk mën na ci xew li si ëpp jigéen bi day ñëw buy am doom doom ja muy am daanaka fekk na bakkanam bi loru na yow da ngay ñëw rek génne doom ju loolu te nit ki vraiment buy ëmb c'est pour am doom ju ànd ak bakkan la buy dund nga xamante ni vraiment mu kontaan ci njabootam yëpp. voilà donc daanaka daanaka presque loolu moo ko causé donc Morne Frey boo gis retard rek maanaam yéex-yéex ci prise en charge bi donc tey ambulance bi tey ku toog ci dëkkam ni ah docteur mankat eh, am na jigéen ji ne nga yebal chauffeur mu daw dem jëli ko gaaw donc balaa lenn di ci xew donc ñu kontaan ci loolu di sant maire bi du Fall te vraiment xam ni depuis bu ko ba mu fi nekkee dafa am collaboration maanaam day ñëw saytu xam sa problème parce que itam santé mënoo ci yëngatu te ñëwoo ci docteur bi laaj ko lan mooy sa problème nit ki du soxla lii nga jox ko lële. donc moom vraiment waxtaan boobu concertation boobu am na te am na li nga xamante ne aussi mi ngi koy def encore une fois parce que loolu dama leen euh, dama ko fàtte woon sax ñun dañu am sage-femme mais sage-femme bi en réalité du état moo ko fi indi comité de santé bi moo koy daanaka maire dafay participer ci salaire am mu leer ni la nga xool ni dëkk bu ñaan dañuy lutter contre la mortalité maternelle infantile 105 village commune amul benn sage-femme ba ba ba dëkk bi ñoo dajaloo ak seen góor góorgóorlu ak seen taxawaay indi sage-femme mais loolu vraiment kay war nañ ko xoolaat te nag mooy remercier engagement bi engagement bi nga xamante ni vraiment maire bi am na ko population bi am na ko voilà ma leen ci sant di leen ci gërëm ndax itam dañuy yombal suñu liggéey parce que man buur a ma fi teg moo war a topp ci liggéey bi mu neex ma liggéey mu naqadi ma liggéey donc ñu la jàppalee ci ay moyens loolu da leen ci sant di leen ci gërëm te di voilà exactement. surtout tension bi fii nit ñi duñu yëngatu surtout euh, damay tooñ sax jigéen ñi souvent di leen naan euh, surtout yéen bu ngeen xasee am goro am lépp dootu leen nangooti def dara ñàkk def dara boobu day waral tax ki nit ki feebaru tension yomb ko daal benn mais ñaaxeel bi si lekk bi fii dañ koo seetlu ni nit ñi seeni lekk dafa bëri xorom te dafa bëri diw. donc lépp lu ñuy lekk xorom seeg diw bi et loolu day tax nit ki tension yomb ko donc loolu moo gën a indi problème mu tension yi fii daanaka sax a am na facteurs yi nga xamante ni c'est général bon ñi ñi ñi ñi bon ñëpp a ko bokkale ka nga dëkk Koul ka nga dëkk Dakar ka nga dëkk fii mais fii surtout maanaam toogin bi bañ a yëngatu bi ak lekk bi bokk na ci li nga xamante ni vraiment. Xadi Samb man la Xadi Samb ci kuréelu maay groupe maay président groupement communauté rurale bi. commune bu Koul commune bu Koul waaw. ah. groupement femme rek. waaw mm-hmm. tey jii li ñu leen euh, jox ni tey muy machine walukaay mm-hmm. maanaam daf leen teggil euh, jafe-jafe yu rëy fii ci dëkk bi. ah loolu moom xam nañ ne moom teggil nañu jafe-jafe ndax euh, machine dafa baax ndax xam nga ne soq ak wal metti na torop portement ak jigéen ñi booleeg liggéey yeneen i liggéey boole togg ak yàq di soq di wal di bojji dafa metti kon nag bu ñu demee ban jox nu ay machine wal kontaante lañ ciy def ak ak sawarte waaw kontaan nañ ci trop sawar nañ tam. Euh, jigéen ñi nekkoon ci dëkk bi dañ daan dem ay kilomètres dem di. waaw dañuy dem ay kilomètres ñenn ñi ngaay la dem di ko walloo ji ñenn ñi si yenn dëkk yi ndax machine wal bu yeboo ma ni comité bi téeméeri dëkk la. ak juróom sa bu ma ni xanaa fukki machine wal bu fi amee ci la yem ñi des ñëpp dañuy walaani xam nga ne nag yenu di walaani neexul fenn di dox baa nga yëg si sa léeg-léeg da ngay dox léeg-léeg da ngay yëg si sa reer léeg-léeg da koy takkal sa doom tegal ko ko ci mbaam mu dem yóbbu xam nga loolu tam neexul léeg-léeg wal gi tuuru léeg-léeg wal gi euh, bu dee nawet mu tawte xam nga loolu tam neexul kon ñun machine yi kontaante lañ ci def ñaan yàlla nag mu wër comité bi bépp xañ na mënuñu dëkk bu ne ñu def ca wante bu doon gox bu ne ñu def fa machine wol ak machine soq kon dina dinañu ci gën a kontaan am ñaari machine bojj ci ci ci dëkk bi ci ci commune bi loolu dinañu dindil suñu jafe-jafe waaw. est-ce que bokk ngeen ci jigéen ñi gi daf leen di financer. déedéet ñun kenn financé ku ñu jotaguñu benn financement. waaw jotaguñu benn soxla nan ko kay soxla nan ko ndax li jigéen ñi ñooñu li ñuy ñu ñuy financé noon noonu rek ñoo yem kon nag bëgg na nu itam kon financé ndax ñu ngi góor lu lu nuy war a def nun noo koy def liggéey bu ñu war a defit noo ngi koy def sa tam danoo war di xool nun jigéen ñi ndax bu yoboo ma bu nu faloo jigéen ñi la ndax jigéen ñi ñoo gën a ëpp doole as ci góor ñi kon nag danoo war di nimiku jigéen ñi di leen xool di leen jàppale noonu nag sunu comité rural sunu monsieur le maire ñu ngi nu jàppale ñu nu jàppale lu mu man bu ko bu ko bu ko bu mënoon lépp dinañu ko defal lépp bu ko na dina nu ko defal moo itam nan ko jàppale bu ko nguur gi jàppale moo kon ñun itam nu mën a jàppale bu baax a baax li mu nu jàppale dina gën a yokk loolu lañ koy ñaan waaw jërëjëf